lenn ci li nga xam ne mooy ay yëngu-yëngoom rawatina jamono bi ñu toll nii ak ni nga xam ne ñu ngi koy waajee élection locale yi nga xam ne mi ngi si suñu kanam ni ñuy def rek mooy dañ koy nuyu dalal ko daal di duggante moom ci laaj ak tontu incha allah rabbi kon monsieur Maguette Thiandoum ñu ngi lay nuyu di la ziar waaye di la tam ci biir euh, jotaayu politique bi nga xamante ni fi mu ne moom ñoo la seet si tey macha allah. waaw euh, jërëjëf euh, ci invitation bi ah. Mm-hmm. donc di gërëm bi nga xam ne mu Salam Vision. Mm-hmm. ci liggéey bi nga xam ne moom la ñu def mm-hmm. allah ci lu ñu gën a xóotal. Mm-hmm. ci waxtaan bi donc nañ gën a wax lan moo euh, tax euh, mu bëgg a ci li nga xam ne mooy élection locale yi ci ak suñu genre yooyu fi nekk tey. macha jërëjëf sëñ Maguette ci leeral bu am solo boobu nuyoo bu gàtt bi gàtt na waaye am na solo itam macha allah rabbi su ko defee rek xanaa ñu njëkkanteeg waxtu wi euh, ñu xam Maguette Thiandoum waaye bi ñu xamee Maguette Thiandoum ñu xam ko ci développement xam ko ci social xam ko itam ci jàppale ndaw ñi tey ñu gis ni Maguette Thiandoum mu ngi dugg ci beneen euh, level boo xamante ne aj na level bi tuuti ndax gannaaw lii dafa bokk ci jamono muy rawatina ci gox bi li nga fi def yëpp. tax nga dugg si ci politique wala politique bi dafa bokk ci dafa dabe si ci liggéey bi nga nekkoon. waaw bon euh, mën naa ne euh, parce que euh, politique bi. Mm. dafa ñoo fekk si ci li nga moom lañ nekk. Mm. parce que lépp loo xam ne dañ koy sunu tey jii di ko def. Mm. donc booy seet politique daf doon lu am solo. parce que comme nga wax wàllu développement. yàgg nañ ci yëngatu ci Sénégal ak surtout fii ci Pikine. te liñ ci liggéey ay at la. donc moo tax tey jii organisation yi ci wala programme yi ci yu bëri donc ci wàllu développement la ci jëm ci wàllu wér-gu-yaram jëm yi. wala jeunes donc lépp pour di ci travailler pour gën a euh, euh, permettre que ñoom am kaddu euh, wala soit ñu mën a changer li nga xam ne moom améliorer seen condition mm-hmm. loolu yëpp bu ñu koy def. Mm-hmm. parfois dañ ci am te gàllankoor yi koy waral yëpp politique bi la. Mm-hmm. parce que ñoom buñ ci bokkaloon ñoom vision. Mm-hmm. te ñoom yàlla jox ndongoy tànk yu bari. Mm-hmm. donc booy seet fi nga bëgg a dem doo fa yegg wala balaa nga fa yegg dina doon ay jafe-jafe yu bari. te comme yàlla def na ne euh, ñun ëpp ñu ñun. Euh, euh, euh, dayoo wala donc ñu mën a au moins ci laaj kàddu askan bi. Mhm. donc te am nañu gis-gis boo xam ne bu tënnee ak ñoom gis-gis bu ñu yor. Mhm. moo tax ñu ne ni dafa jaar. Mhm. tey ñu xool naka la ñuy lëkkaloo ñi nga xam ne ñoo bokk gis-gis. pour que élection yi di ñëw muy élection locale. ñu ànd liggéey ci boobu bu ëllëgee lépp loo xam ne jàpp nañ ne lii lu war a jëm kanam jëmal kanam askan bi. donc ñu ànd ci pour war ko mën a changer. parce que Pikine tey dafa soxla képp koo xam ne doomam nga ak foo mënti féete. Hmm. donc ñu mën a daje ñu waxtaan suñu biir. loolu moo tax ma ne euh, bi booy seet daf ñoo dalee si mais tamit euh, fekkoon na tamit ñun ñu jàppoon bu yàgg ne. Hmm. Euh, dafa doon terrain boo xam ne waruñu ko bàyyee. Hmm. surtout yenn ñi rek quoi politiciens yi tuumaan ko. ndax fan koo xam ne moom mooy yore sa gox wala mooy yore dëkk bi. donc boo koy jox da nga ko war a jox ñoo xam ne sell na. jox ko ñoo xam yor bu rafet donc loolu moo tax tey mu doon lu am solo wax dëgg yàlla wax nga ko fi nga daanelee léegi dafa doon point bu sensible doon point boo xam ne tam bu am solo la muy jël gox bi dénk ko koo xamante ni wax dëgg yàlla am na crédibilité mais tey jii Maguette bu ma xoolee fii gox bi nga xam ne fi jii nga nekk jëf nga fi loo xam ne tey jii war na tax nga laaj gox bi mais tey fi ngay laaj gox bi nga bëgg a laaj itam dem ci élection locale na bëri na ay ay borom ndomba tànk yu fi nekk yoo xamante ni benn bu ma xoolee donc euh, ñi ngi wax ñàkk juboo bu am seen biir ay xeex yëpp mi ngi am mais gox la boo xamante ni tamit Maguette defe naa ni xeex bi mu laaj pour jël gox boobu tamit du yomb te Maguette waaw xam nga bu yëf yi yomboon. Hmm. man di ko laaj. ndax xam dañu ñëw rek jox Euh, euh, fii yàlla def na ne euh, ñun wutuñu lu yomb. Mm-hmm. ñun li ñuy wut mooy dañuy xool li nga xam ne moo fi nekk. Mm-hmm. ñu xam ne lii fi nekk ñi fi jii di ko laaj. Mm-hmm. wala ñi fi nekk toog fi gis ne ñoom seen wàllu bopp. li ñu doon xaar ci ñoom wala li ñu bëgg ci ñoom. donc ñoom matewuñ ko. wala boog ñoom toogeewuñu noonu. donc est-ce que tey jii jafe na rek war tax ñu bàyyi kat ñoom ba ñu yàq parce que li kii doon wax naan euh, ñoo ko gisee ñaar ñuy xeex. Mhm. te ñu dëkk ci sa wet. bu fekkee ne li ñuy xeex bu ñu paree euh, gàllankoor dina la fekk si yow nga xam ne yaa fa toog mhm. demal nga àtte leen wala soit nga dem nga fay fay. nga mhm. fay safara bi. donc moo tax tey euh, ñun ñu fekk ñu ne waratuñu toog. donc même lu mu jafe-jafe wala même bu dee am na ñu ñu jiitu ci terrain bi wala bu dee ne am na ñoo xam ne nekk nañ fi maire ay nangami at. mais ñun dañoo juger évaluer li nga xam moom la ñu liggéey ñun ñu juger évaluer ñun xam ne moom la ñu liggéey ak lu ñu pesé ñu xam ne nii bu ñu leen bàyyeeg gox bi boo def ndànk euh, tumuraanke li ñuy nekk wala gox bi di gën a yàq moom moo tax euh, ñu ñëw sóobu ci mais nag comme ci kenn man doom dama ci am ñu ma ciy àndal te ñi ma ciy àndal yàlla def na ne ñoom ñi ci bëri si ñoom euh, yàgg nañ ci terrain bi donc moo tax ñu rafet ñu yor ci que ne ñu àndee lépp loo xam ne bëgg nañ ko ci gox bi muy bëgg nañ ko am. Ngarañ euh, ñu ngi wax euh, xam naa leen bu baax. Euh, lu ci bëri booy seet xeex lañ fi dina nekkee ak xuloo. surtout mais jàpp naa ne li joxal askan bi bu mm-hmm. ma ñu nekk. donc moo tax ñun ñu rafet nga xam ne buñ ci demee incha li liñ ci war a am. incha allah yal ko yàlla mottali mais bokk la ci aussi beneen question boo xamante ne tey jii ñu bëri ñu ngi dégg dégg Maguette Thiandoum peut-être ñu bëri xamuñu ko mais ngi dégg turam tey man xam naa magget Thiandoum xam naa Maguette Thiandoum lan la jëf ci biir Pikine Nord du ma ne Pikine Nord mais Pikine en grosso modo laay wala ma ne Dakar mais tey ji Maguette Thiandoum bu doon présenté tey ji parcours bi mu def ba yegg fii ba bëgg a dem tey ji ci élection bopp ko xaati tey ji fi mu waaw xam nga tey ji euh, yàlla def na ne comme ko waxee euh, Pikine mhm. euh, fii laa juddu yaroo fi màggee surtout Pikine Nord bi mhm. jàng sama jàng aussi ba am sama baccalauréat Eh, teewul continuer di eh, fi liggéey. Mm-hmm. Eh, yëngatu naa ci wàllu développement fii ci organisation yu bari. Mm-hmm. parce que OSS ECOPEN tey jii bi nekk fële théâtre Verdure bi. membre fondateur la si ñi nga xam ne ko créé. bâtiment bi nga ne moo fa nekk sax ñu ko tabax daanaka lu ci bëri sama loxo la jaar. nekkoon responsable financier. bu ECOPEN. donc am na structure yu bëri tey. Mhm. fii au niveau du Sénégal wala à Pikine. Mhm. bi ñu leen di taxawal surtout bu jëm ci wàllu ndaw ñi muy conseil wala local de la jeunesse mhm. conseil départemental presque boo seet lu ci bëri sama loxo la jaar. donc maa leen samp wala teg leen wala gunge leen. booy yàlla may leen tey jii ñu ci bëri. ñu nekk ay ndaw ñu am ay ndombay tànk. wala ñoo xam ne euh, vraiment euh, tey mën nañ demal seen bopp te soxlaalu kenn dara. Mhm. donc loolu mu doon loo xam ne ay jëf loo xam ne def nañ ko. Mhm. ndax ci doole aussi donc mu jëm ci wàllu Pikine am na ci ay structures de développement yoo xam ne ak organisation yu bëri yoo xam ne jiite naa ko wala nekk naa ci mu jëm ci wàllu nawetaan yi wala mu jëm ci wàllu activité sociale. Mhm. yoo xam ne am naa ci ay am yu am solo ba même ci ay Pikine nga ne fi lañ Euh, ginnaaw loolu aussi comme ni wax euh, ci wàllu ndaw ñi am nañ benn organisation boo xam ne maa ko jiite depuis presque mois euh, daanaka fukki at. Mm-hmm. mu nekk réseau jeunesse population et développement du mu nekk daanaka ak ONG. Mm-hmm. boo xam ne ci wàllu national am nañ ci ay vraiment am am ay ay ay doxalin am solo. Mm-hmm. ci réew mi yoo xam ne vraiment nit ñi mën nañ la wax seen i jëf mën nañ xam aussi seen i jëf te loolu loo xam ne mucc ayib la donc vraiment ci wàllu développement ci wàllu social ci wàllu santé ci wàllu emploi entrepreneuriat des jeunes mm-hmm. donc vraiment ci la organisation boobu di dox te yàlla def na ne maa ko jiite donc donc loolu ca yàlla mm-hmm. euh, ginnaaw loolu aussi tamit euh, yàlla def na ne am na entreprise bu ma jiite boo xam ne mu nekk entreprise bu am solo tamit euh, mu nekk Bonergie mu nekk une entreprise boo xam ne seen entreprise bu ñëw ci wàllu solaire mm-hmm. tey jii am nañu ay bureau presque booy seet ci juróomi pàcc ci réew mi ci juróomi région ci réew mi te lépp Euh, am ay liggéey bu am solo bu ci def am nañ toll man ay cinquante employés juróom fukk donc loolu mooy wane euh, surtout liggéey bi nga xam ne mm. tey jii moom yàgg nañ ko def te am nañ ci expérience di ko toppal mm. yàgg nañ mobiliser tamit ay partenaires yu bëri mm. mu jëm fii ci Sénégal wala mu jëm ci national wala international ci kuréel yooyu ñu yëngatu yooyu yëpp ba tax na euh, tey jii dañuy am que vraiment di wax lu nga xam ne moom lañu liggéey xam Euh, may ñu ko ñu am ko wala ñu am ci ñu ci liggéey ànd ceeg ñoom mm-hmm. moo waral tey jii ñu ne euh, vraiment gox bi nga xam ne si lañ dëkk muy Pikine mm-hmm. wala muy Pikine Nord dafa dafa jot ñu jël loolu yëpp ñu indi ko mm-hmm. njaar daa ko fi indi daa ci liggéey mais gis nañ ne euh, lañ ci bëggoon def yëpp mun ñu ko ci ndax ndombay tànk yañ ca yoru te ña ko ca yoru amuñu même vision bi ñu ci am Euh, moom tax tey jii euh, ñu ne vraiment tout ce qui relation ak euh, partenariat ak opportunité. Mhm. dinañ ko jël ñu indi ko incha allah ñu teg ko fii pour au moins may waa askanu Pikine wa mhm. may waa askanu Pikine ñu am yokkute ci li nga xam ne moom la ñuy liggéey. Euh, amati na solo encore une fois de plus vraiment ku dégg li nga wax xam ne maîtriser nga ko benn macha allah rabi li may li ma wax sànq xëy na xam naa la mais ñu bëri xamuñu loolu mais à travers lii dinañ dinañ mën a xam kan mooy Maguette Thiandoum ak lan la def li dem ci biir Pikine gi mu nekk mais tey jii Maguette Thiandoum vision bi mu am ba jëw bëgg a dem ci élection locale yi di ñëw fi mu toll lan moo waral fi mu toll nii est-ce que Maguette Thiandoum moom kese moo nar a dem ci élection yi wala am na ñu mu xalaat lëkkalool pour mën a dem ci élection yi parce que élection locale itam dafa mel ni yombul bi. waaw xam nga élection locale euh, comme ni nga ko waxee sànq élection gox-goxaan. donc vraiment tey jii ñi nga xam ne ñoom ñoo dëkk ci quartier yi. Mhm. Euh, dëkk ci euh, koñ yeeg yooyu ñoom ñooy lëkkaloo. Mhm. ànd dem fale ji ki nga xam ne moom la jàpp ne kii bu fi nekkee maire. Mhm. donc vraiment dina leen dimbali ci seen i tawat ak seen i bëgg-bëgg. ba gox bi ñu donc moo pour liggéey ko bu benn nit rek mënul jóg defar. parce que bu ñuy fal bu ñu fal benn nii dañuy fal ay conseillers ak benn maire. Mm-hmm. te xëy na rek euh, faleen bi dina changé. Mm-hmm. ndax balaa ñuy fal nit maire bi c'est-à-dire nit ñi dinañ xam kan la bu ba xam nga leen daan fal. Mm-hmm. te duñ xam kan moo doon maire. après bu ñu paree conseil ñooy toog seen biir waxtaan. E, xool ki ñuy tànn ñu tànn. boobaa dafa mel ni population bi daaw ñu fal maire bi. ba moo tax e, xëy na engagement bi doon na des lu bari. mais tey jii am na ay changement ndax balaa ñuy fal dinañ xam ñu fal kan. tey bu Maguette Thiam bëggoon taxaw nekk ci liste nit ñi xam ne bu ñu falee. Maguette Thiam mooy doon maire dinañ xam ndax Maguette doy na leen. wala doy leen ndax bëgg nañ ko fal wala bëgg ko fal mm-hmm. donc. moo tax loolu loolu lu am solo la ren ci élection yi. Mm-hmm. te pour nga mën ko réussir pour man boo ci demee seul. Mm-hmm. Euh, na xaw a métti trop nga am dinañ ci bëgg. surtout moo tax incha allah ñoom ñoo ngi ciy waxtaan. Euh, mm-hmm. ñoo xam ne ñu bëri ay parti politique la wala ay mouvement. yoo xam ne nekk nañ euh, ci Nord. yàgg nañ ci ay weer. wees yëpp ak ñoom pour xool war a dem jëli mel. Euh, yàlla def aussi euh, ci lu yàggul mhm. euh, xëy na yàlla wuyu suñu suñu suñu wootee ba bi mhm. bi ñuy teg yeewu askan bi mhm. ñi nga xam ne ñoom ñoo ko composé fii ñu bari na ñu Pikine Nord ñu xaw a ak ñu ñi nga xam ne mooy bëgg-bëgg bi ñu bi ñu bi ñu naroon def mooy ànd donc tey jii moo tax ci yeewu askan bi lañu nekk bi liggéey ñoom ànd ci ak nga xam ne mooy parti yi ko composé ak mouvement yi pour jéem a xool élection yi ñu ñuy jëm naka la ñuy def ba ànd donc teg fi maire bu bees. Mm-hmm. ak équipe bu bees ba changer li nga xam ne moom moo xew ci commune bi muy Pikine mm-hmm. donc ci tànk yooyu lañ nekk te incha allah. Mm-hmm. Euh, am nañu rafet njortu que ne euh, buñ ci yàlla dimbalee. Euh, dinañ ci ànd ànd bu rafet. donc boobu suba ñu changé li xam ne moom moo fi nekk tey jii maire que vraiment ni muy gérer commune bi muy Amath Diarra donc doyul. te bëggoon nañ au moins ñu changé ko teg fi leneen. macha allah mu doon lu am solo te ni nga ko waxee tamit vraiment mucc na ayib lool parce que gannaaw fi mu ne daanaka xare moom ku ca jëm fi ne loo am ci doole du doy kon invité wala jokkoo ak ñeneen ñi nga xam ne comme ni nga ko waxee mais yow askan wi tam bëggoon naa xam ñoom seen base réellement dëgg-dëgg ñoom fan la ñu nekk fi ne ba nga bëgg a jaxasoo ak ñoom tamit. waaw xam nga yow askan bi euh, presque booy seet ay ay ay ay daanaka ay parti politique la yoo xam ne vraiment ñu euh, ci bëri mm-hmm. euh, Pikine Nord la ñu. mu nekk ak ci yeneen gox yi. Mm-hmm. mais tey ci Pikine Nord boo demee ñu ngi ci gis grand parti ci la bokk boo demee Pastef ñoo ngi ci biir boo mm-hmm. demee eh, ki nga xam mooy Bës du Ñàkk ñoo ngi ci biir waa PUR y a des mouvements euh, euh, yoo xam ngi ci biir ay parti MCS mm-hmm. donc vraiment parti ay doom boobu donc vraiment parti am nañ solo trop ci biir même waa taxaw Dakar sax si lañ bokk donc moo ta pour man force boobu ñoo ñu constitué ñëpp Euh, ak mouvement yi nga xam ne ñoom ñoo ñëw rejoindre leen wala ànd ak ñoom. Mm-hmm. pour man gisuma fi benn force bu leen attan fii. parce que quand même li fa nekk ci ay limu parti. Mm-hmm. donc wax dëgg yàlla ñoom buñ àndee ci seen biir. Mm-hmm. donc koñ boo mun ci dem wala quartier boo mun ci dem. di nga fa gis ñu leen fa teewal. di nga fa gis ñoo xam ne ànd nañ ak ñoom. rax ci dool yi loolu aussi tamit mu fekk ne euh, mouvement yamale euh, yàlla def na bu ko tegee ba léegi. nit ñi gis bëgg-bëgg ak bi nga xam ne mooy euh, xalaat bi nga xam ne moom la ñuy doxalee mm-hmm. ci quartier yi ñu am vraiment beaucoup de d'amour mm-hmm. euh, ak ay sympathisants ñoo xam ne ñoom ñëw di ànd ñu ñun liggéey ñu ñun ci mbir mm-hmm. ndax quand bi ñu sampee suñu mouvement ba léegi ñu ngi wàcc ci terrain bi ñu ngi ci quartier yi. ñu ngi chef de yi ñoo ngi monté ay donc ñoo ngi liggéey. loo xam ne tey jii mbooloo bi takk na takk boo xam ne. donc vraiment ñu rafet nañ njort xam ne am nañ ko bu ñu ko jëlee boole xam ñeneen ñi nga xam ne seen mbooloo la ñu mm-hmm. euh, fu ñu dem incha taxaw fa donc élection moom euh, xam naa ne duñ fa duñ fa yàgg sa ndam bi di mm-hmm. di ñëw. incha allah rabbi tey ji pourquoi le moo yamale. waa xam nga yamale. Euh, tur bi rek wuyu na borom. moo tax ma laaj ko sax. waaw parce yamale. Mm-hmm. mooy naka la def ba képp koo xam ne muy ay cër. tey jii xam ne wala muy ay ressources mm-hmm. yoo xam ne nekk ci réew mi mm-hmm. parce que booy seet euh, am na ay ressources yoo xam ne ay ay ay la mm-hmm. wala muy ay ressources financières wala ay muy ressources yoo xam ne ay matériel la wala lépp loo xam ne jumtukaay la wala yooyu tey jii buñ ko waroon jël di ko joxe wala ñu koy séddale wala ñu war ko joxe gox bi dañ cee war a yemale nit ñi yemale du du du maanaam tolloole parce que yemale ak tolloole bokkul mais dañoo bëgg ki nekk li nga méngoo ñu jox la sa cër tey jii loolu moom mooy suñu politique suñu politique mooy dañoo bëgg tey jii ci biir gestion collectivité locale képp koo xam ne yaa ngi ci biir commune bi muy woy laago yi nga xam ne ñoo fi nekk mooy wala muy jigéen ñi wala muy ndaw yi tout tànk yi wala ñi nga xam ne mooy mag ñi wala ñi nga xam ne ñoom dañuy yëngatu ci wàllu acteur culturel yi wala ñi nga xam ne mooy nekk ci acteur sportif yi wala muy jëm ci nekk ci marché donc bu kii gérer commune bi bu ko waree gérer war naa ci xelam ak xalaatam mhm. mu ne tey jii man waruma jël ñi bàyyi ña ca des mhm. wala waruma jël ñi rek favoriser leen bàyyi ña ca des mhm. wala waruma ñëw recruter fukki nit ak wala cent vingt vingt personnes cent vingt trois personnes du ma xalaat ne am na ñeneen ñu nekk ci gox bi ñoo xam ne am nañ seen cër si ci ci biir donc foog ñu ñu doxalin doxalin boo xam ne donc dina ñu may ba ñun gestion bi ñuy def lépp day jëm ci gox waaw léegi képp koo xam ne population Pikine hmm. donc euh, li nga xam ne moom méngoo ak yow. Hmm. muy yoon bi donc waa nañ mën defar ba ñëpp am ci accès. Hmm. donc war nañ fexe ba li nga xam ne ñoom ñoo ko bokk muy commune bi ñu fexe ba ku ci nekk ni ñu ci mën a jotee ñu jotee ko donc loolu mooy vraiment euh, suñu suñu vision ci wàllu yemale donc créer l'équilibre créer li nga xam ne moom mooy euh, l'équité donc ci dans la gestion donc de la commune Euh, loolu tamit euh, vraiment ni nga ko bëggee ci biir gox yi. Mm-hmm. noonu ñu ko bëggee tamit au niveau départemental noonu ñu ko bëggee tamit au niveau national. Mm-hmm. parce que jàpp nañ ne ki nga xam ne mooy président Macky bu fekkee ne li muy doxal yëpp doxale na ko te yemale tax. Mm-hmm. mu yemale nit ñi. gëm nañ ne vraiment Sénégal ndóol bi dina wàññeeku. donc jafe-jafe yi dina wàññeeku. ndaw ñi dinañ am accès ci lu bari. nit ñi nga ne ñoo dëkk ci gox goxaan yi ak ñun surtout ñu dëkk ci àll ba. dinañ am aussi ci yenn ressources yi. parce que yabale moo amul moom moo tax jafe-jafe yi gën bari mm-hmm. donc loolu la ñuy prôné mm-hmm. loolu la ñuy wut te loolu la ñuy yaakaar ne mm-hmm. tey ko doxalee Sénégal dina indi ay changement yu bari incha allah rabbi ji programme mouvement yamale à travers euh, élection bokk xaaj tey ji ban programme la fi mu toll waaw xam nga ñun programme déjà mooy comme ma l'expliqué euh, yàlla def na ne ñoom ci benn coalition mu tudd yeewu ni yee euh, yeeyu askan bi donc ci biir coalition donc am nañ ci programme bu am solo boo xam ne ñu ngi koy tëgg ñi nga xam ne ñëpp dañoo nekk ci biir tey jii ñoo ngi indi seen i programme ñu xool naka lañ koy def ba au moins mu nekk benn programme nekk programme Yewwi Askan mais li ci am daal li mu ci mën a wax mu leeral ko ci mooy suñu bëgg-bëgg ak suñu mébëg mooy ñu liggéey fi tey jii loo xam ne wax dëgg yàlla fii juróomi at yi ñu jëm donc dinañ changer complètement li nga xam ne moom mooy euh, euh, gis Pikine Nord ci wàllu doxalin ci wàllu gestion administrative parce que gis nañ ne même administration Pikine Nord bi ñu koy gérer vraiment euh, gestion bi des na trop mm-hmm. parce que euh, clientélisme politique bari na fa mm-hmm. ñi nga xam ne moom mooy aussi personnel bi bari na ñi mm-hmm. nga xam ne aussi tamit moom mooy ni euh, ñuy gérer ñu ci bëri seen i compétence des na donc loolu jàpp nañ ne lu ñu war a mën a changer beneen bi aussi gis nañ ne aussi Pikine Nord wax dëgg yàlla lu jëm ci wàllu yoon doon na ay jafe-jafe yu am solo parce que tey jii mënoo ci benn quartier. Mm-hmm. wala ci benn koñ euh, te amoo fa ay jafe-jafe loolu tamit loo xam ne lu ñu war a lu ñu war a dimbali mm-hmm. mais leneen li nga solo a def la tey jii askan wi sonn nañ sonn boo xam ne waroon nañ leen may ay ay espace wala ay cadre mm-hmm. yoo xam ne war nañ fi mën a am information bi ñu soxla pour seen i projet ak seen wàllu programme war nañ mën a dimbali askan bi ba tey jii képp koo xam ne euh, bëgg nga au moins yokk sa am-am. Mm-hmm. maanaam si liggéey bi ngay def ñu may la nga nekk ci cadre boo xam ne wala mën nga fa am information bi. Mm-hmm. wala ñu faciliter la. Mm-hmm. accès ci ay financement wala ci ay ressources. donc jàpp nañ ne loolu bu ko commune bi doxalee dina gën a tàggat euh, ay ay ay population wala may leen ñu am accès ci yenn ci yenn information wala ci yenn ressources yi. mu jëm ci wàllu wér-gu-yaram aussi tamit jàpp nañ ne am nañ fi ñaari poste donc war nañ mën a améliorer donc li nga xam ne mooy seen plateau technique mm-hmm. pour que tey jii euh, vraiment euh, lépp loo xam ne bëgg-bëgg la mm-hmm. euh, ci wàllu faju wala jëm ci ay information jëm seen wàllu wér yaram mu ngi fa yomb mm-hmm. donc am na ay vraiment pàcc yu bëri yoo xam ne ñoo ngi ciy liggéey jëm ci wàllu sécurité bi jëm ci wàllu environnement bi donc jëm ci wàllu culture bi loolu yëpp donc programme boo xam ne tënk ko incha allah ci lu yàggul rek dana ko génnee teral communauté bi ak population bi ñu apprécier ko ba bët bu ñuy dem ci élection yi. ñu wane ci loo xam ne liggéey liggéey bu am solo la. macha mu mel ni fi ne ci nga biir wax yaa ngi koy wax léegi mais dafa mel ni tey bu koy xool tey jii ville de Pikine bu ñuy xool commune de Pikine Nord est-ce que bokk ci commune yi xam ne ñoo fi ëpp ressource financière tey jii nii. bon du ma ne ñoo fi ëpp mais en tout cas. Hmm. Euh, euh, ci ñi fi ëpp la bokk. ndax tey jii xam nga ne euh, Kër Massar ak Malika yooyu génne na leen mais tey jii Pikine Nord euh, ci biir Pikine daagu daal bi mm-hmm. presque am na douze communes yoo xam ne fi lañ nekk di mm-hmm. douze communes bi quand même euh, moo nekkoon Pikine daagu daal de lieu département comme def na moo nekk chef lieu département bi tey jii ginnaaw même ressources yi mm-hmm. cest à position bi mu am rek position stratégique boobu waroon na tax gestion bi ñuy def Pikine Nord mu doon gestion bu mucc ayib maintenant ci wàllu recette municipale Euh, le maire euh, ci budget yi passé mu ngi tourné autour de huit cent millions parce que depuis acte trois décentralisation bi dugg mhm. gis nañ ne ressources yi nga xam ne maire bi am na ci accès ressources mhm. yu am solo mais euh, mais li ñu ci jaaxal mooy vraiment ak compte administratif bi ñu nga xoolee bi passé li mhm. nga xam ne moom la maire bi di collecté dafa néew loolu méngoowul ak li nga xam ne moom mooy li mu jàppoon ne mën na ko am tey jii problème mu collecte la ñu am. recette bi wala est tey jii euh, benn problème boo xam ne xam na moo tax euh, vraiment euh, am na rafet njort que ne. ci mm. lu moo fi toogaat war ko remplacer ñoom yaakaar ni ñu lay door. Mm-hmm. donc dinañu changer. lépp loo xam ne mu gestion jëm ci wàllu collecte recette yi. Mm-hmm. nga xam ne mooy recette municipale yi. Mm-hmm. mais aussi xam na tey jii mun nga am xaalis bu bari fekk. sa dépense ëpp say say recette donc moo tax suñu gis-gis mooy dañu war a fexe ba tey jii dépense nga xam ne moom moo fi nekk wala investissement yi nga xam ne moom la commune bi war a def war nañu am ay recettes yu méngoo ak moom te pour que ñu mën ko am donc dafa laaj ñu def benn politique boo xam ne ci biir commune dina tax recette yi war a mën a méngoo waaw donc donc loolu loolu je pense que lu lu am solo la loo xam ne war nañ ko jàppale suñu loolu. loolu bi nga xam ne moom la am. donc waroon na mais waroon a def li loolu kon lu lu am solo rek euh, ni nga ko waxee léegi nii kon tey tey jii mën nañ xaar ne Pikine Nord moom mi ngi xaar Maguette Thiandoum tey ji bu doonee maire commune Pikine Nord tey jii pop def dugg si ci biir commune bi. bonheur si dugg fii maanaam indi fi xam-xamam ak formation yi nga xam ne li nga xam ne yaa ko doon def ci biir gox bi ba nga xamante ni doon na koo mel fas yéene ko gën a yaatal kon ci biir ci biir ci biir ci biir commune bi. waaw allah xam nga tey jii euh, structure yooyu ngay wax la mais euh, li ci am solo mooy euh, tey jii bu yàlla defoon équipe bi nga xam moom la ñu àndal yàlla ñu fal nekk ci gox bi. Hmm. donc lépp loo xam ne am nañ ko en terme d' lépp loo xam ne am nañ ko en terme de possibilité et de coopération. Hmm. donc dinañ fexe ba une profité ci parce que comme ni wax ñoo ngi koy jéem déjà. Mhm. sans quand même ñu am ndomboy tànk li nga xam ne moom mooy nekk ci mairie bi. Mhm. donc bu fekkee ne yàlla dénk nañu loolu. Mhm. parce que comme ni ma wax yàlla may nañu xam-xam ak xalaat yi. nan def ba indi fi ay coopération technique. yu am solo parce que loolu aussi bu manqué ci gox bi la parce que euh, ki nga xam ne moo fi nekk maire. peut-être que euh, di ko wër ak moom liggéeyam. Euh, amuñu assez de capacité pour mën a mën a mobiliser. ay moyens yu am solo ci biir gox bi boo war a mën a changer ak influencer li nga xam ne moom mooy euh, euh, gestion publique bi mais suñu liggéey incha allah ci yeneen organisation yu nekkoon yëpp ak ñi nga xam ne am na ñoo xam ne pare nañ ko jàppale ñu incha allah gëm naa ne bu fekkee ni dénk nañ ñu li nga xam ne mooy euh, maire bi donc dinañ ci def lu am solo waaw dinañ ci def loo xam ne comme ñu wax bi du vraiment fay lay doon parce que ñun suñu suñu bëgg-bëgg bi ñun suñu vision raw na Pikine la. Mm-hmm. ñun jàpp nañ ne Pikine dafa war a changer. Mm-hmm. Pikine dafa war a gën a améliorer les conditions mm-hmm. jàpp nañ ne aussi ginnaaw Pikine même Sénégal dafa war a changer. donc moo tax képp koo xam ne partenaire bu développement la. bu ñu mën a dem jëli ba indi ko ci gox-gox bi bi ci commune nañ ko jëli ci indi ko. lépp loo xam ne partenariat technique la euh, coopération technique ñu war a indi dinañ ko indi. te et puis sama entreprise yi ngay wax. donc euh, dinañ ci gën a jàppale gox bi ba mu jëm ci wàllu surtout accès énergie solaire mu doon loo xam ne dafay yomb la jëm si ci wàllu activité de développement social ak sanitaire mu doon loo xam ne dafay gën a yomb la ndax jàpp nañ ne loolu du wàllu politique mais wàllu développement la donc moo tax dinañ ko continuer liggéey ba lépp loo xam ne mën ni ko ci def ñu def ko ci incha allah mu mel ni xanaa mooy doon suñu dernière question wala waa dernière rek Maguette Thiandoum dañoo gis ni moom faral bëriwul lu muy génn ci média yi di wax moom il préfère nekk en sourdine liggéey liggéey bi ci suuf la moo waral loolu fi kon ne <laughs> waaw xam nga dafa dafa dafa dafa amoon moment de communication mhm. euh, boo xam ne euh, ñun euh, parewuñ woon pour génn communiquer mhm. mais liñ doon liggéey ñu ko doon liggéey ci suuf mhm. parce que dañ ne yëf yi du du du ci toog di ci télé bi wala yooyu da dem seeti nit ñi waxtaan ak ñoom dem def porte à porte dem ci donc loolu moo gën a ëpp solo loolu ñoo ngi ci nekkoon di ko liggéey te si lañ nekk nii ba léegi. Mhm. parce que boo bëggee am kaddu askan bi. Mhm. du ci télé bi ngay taxaw di wax ñoom. Mhm. mais da ngay dem taw ak ñoom waxtaan ak ñoom. et donc wax leen fa nga bëgg a ñu xam yaay kan donc ñu liggéey liggéey loolu ci Pikine noonu. parce tey jii euh, doo mën a di nga dugg ci ay quartier yu bëri laajte fa ku fay màggee jàll ñu naan la kan la ak ñu def yooyu. gaa am na ñoo xam ne xamuñu ci li nekk lan la moo tax. ñu nekkoon ñooñu nañ dem seeti leen waxtaan ak ñoom gën lañ indil li nga xam ne moom la liggéey mais en tout cas pour dalal sa xel que ne une stratégie de communication que nous avions adoptée mm-hmm. maintenant nag léegi nag lañ commencé mm-hmm. changer stratégie léegi nag dañ ne koy gën a offensif moo tax mm-hmm. tey jii ak euh, fan yi ngay gis yu bëri euh, wax dëgg yàlla ñoo ngi commencé di def une communication forte ci biir médias yi pour que nit ñi gën a xam suñu wax lan la ak suñu discours bi ñuy porte lan la. macha allah tey jii bu ñu nee Maguette Thiandoum lan mooy doon message bi mu war a lancer population sénégalaise plus particulièrement population banlieue bi nga li nga xam ne moom lay lancer message rek mooy je un appel. Euh, ci ñi nga xam ne ñoom ñoo dëkk Pikine Nord. Mm-hmm. Euh, di faire un appel ci ñi nga xam ne ñoo dëkk Pikine. Mm-hmm. pour wax leen ne tey jii am na lu bees loo xam ne moom. li fi bees mooy vraiment dañ ñi nga xam ne mm. yàlla def na ne euh, seen loxo dafa set wecc mm. ñi nga xam ne yàlla def na ne ñoom dañoo nekk ci développement liggéey ci te vraiment muy de vrais acteurs de développement ñoo xam ne euh, mu xaaruñu sax ku leen fal pour que li ñuy liggéey ñu liggéey ñu nekk ci ay at yu bari nekk ci ay at yu bari doon ko liggéey mm. lépp jëm ci wàllu askan doon leen dimbal ci seen i soxla doon leen jàppale ci seen i accès à l' information seen wàllu wér-gu-yaram xool naka la ñuy fexe ba ndaw ñi am ci accès seen wàllu emploi fexe ba ñu am ci accès ñooñu tey mhm. ñoo jàpp ne ñi nga xam ne ñoom ñoom ñoom ñoo ñëw jël gox yi mhm. te ko yore ay at yii mhm. wala ñi ñoom ñoo jóg di ko bëgg jël pour war ko mën a yore ci at yi ñu jëm donc jàpp nañ ne ñoom ñu ci bëri suñu seetlu jox nañu ne boo deful nag ñi fa nekkoon ak ñi fi di waajur ñoom ñoo ci dara am te pour comme loolu la ñuy bañ moo tax vraiment ñu invité ñëpp ñu ñëw fekk si ñu mm-hmm. suñu liggéey bi ñu nekk pour que ensemble ñu war a mën a changer l'image de Pikine Nord et changer l'image de Pikine parce que tey jii kat Pikine a besoin d'avoir beaucoup de ses dignes fils mm-hmm. ñu toog pour que au moins mën a redresser mm-hmm. li nga xam ne moom moo fi nekk ñu jafe-jafe yi nga xam ne moom la doomu Pikine yi nekkee loolu incha allah bu ñu àndee lëkkaloo donc yàlla mën ñu ci dimbali nga xam ne moom vraiment retrouver son image wala ba Pikine vraiment génn ci jafe-jafe yi nga xam ne moom lañ toll doomu Pikine yi tamit génn ci ba ñu am ci ndam donc loolu mooy sama moo bi nga xam ne loolu laa ci doon sànni kàddu di gërëm euh, ci sa vraiment euh, interview bi di am yaakaar ne dina gën a yaatal waxtaan bi ci yeneen i euh, fànn ak li nga xam ne si la ñuy liggéey mm-hmm. lu jëm sax ci suñu wàllu programme bi incha allah ci fan yi di ñëw Euh, gërëm ko bu baax a baax sant ko wax dëgg yàlla waaye sant tamit entourage bi nga xam ne wax dëgg yàlla ñoo ñu yombalal liggéey bi tam ko ñu mën a jot ci moom ndax wax dëgg yàlla kilifa la oyof xëy moo ko jàpp rek waaye kilifa la te xam nañ tamit ndomba tàng yi xam ne tege na ci kaw mi tamit wax dëgg yàlla xam nañ ni du yomb mais kon ñi ngi sant bu baax a baax gannaaw bi ñu ko santee moom Maguette Thiandoum sant bu baax a baax entourage bi ku ci mel ni soxna Mina ku ci mel ni Cheikh bi parce que chaque fois ngi gis taxaw bi ñu lay taxaw te ku jëm yow tam ñi ngi lay yombalal accessibilité bi pour nga yegg si ngi lay yombalal tamit pour jot gi pour nga mën a yegg ci yow kon ñoom it ñi leen di sant bu baax a baax di leen ñaanal ñoom it kenn ku ci nekk mébét bi mu am ak bëgg-bëgg bi mu am ak yéene bi mu am dëppoog sa bopp seen jotaay bi la woon les coulisses politiques sur Salam Vision Events ñu ñëwoon tey seet ki nga xamante ni mooy Maguette Thiandoum un acteur de développement un acteur social koo xamante ni wax dëgg yàlla askanu Pikine Nord xam nañu ko ville de Pikine xam nañu ko tey moom lañ seet si woon doon waxtaan ak moom ci li nga xamante ni mooy lii mu dëgmal di élection locale yi nga xam ne ñu ngi koy waaj élection ndaw gox goxaat yi fas yéene cee dem kon ñu koy ñaanal moom itam yal na ci yàlla def barke def ci jàmm def ci yiw ba ni mu ko xalaatee bëggee noonu itam sama borom defal ko ci lu kawe njot sant bu baax a baax la ñuy def mbokku internet yi nga xam ne ñu ñuy suivre saa su ne ci biir Salam Vision abonné fi fidèle ci tamit saa su ne ba luñ dugal ñoom ñu daal di koy topp di ko seetaan di ko commentaire ñoom leen sant bu baax a baax a baax di leen jox dig daje incha allahu rabi